bëre arbitre sifflé na diggante Tapha Leer Fils de Balla dagg na lewtoo bi moom Fils de day ñëw attention Fils de Balla excès de confiance Fils de Balla Tapha Leer combat bu décisif si seen carrière ñoom ñaar mais combat bu décisif bi combat dañuy daje de dañuy daje de Fils de Balla méb na sànq pied gauche bi mais gauche bi waaye wóorul li mu def dafa dóor ba tànk bi jóg jël na tase nañu xamoon na oh jël na ko mu ngi koy forcé Fils de Balla mu ngi koy forcé Fils de Balla Tapha Leer mu ngi koy jongle jongle ah, attention njaax njaax wala attention attention lu arbitre ah Tapha Fils de Balla mu ngi dem ci Tapha Leer nangu ko wuyu lépp dama dimbali rek. Mor Gueye waay laay njëkk a sant. mbëru Guédiawaye dañoo sonn si combat bi. dëgg la mbëru Guédiawaye aw ma seen fay. ñoom laay tijjee wóor na yàlla aw ma seen fay. dama voyagé woon sama papa ma seeg jàmm moom yóbbu ma dem ba tukki barki sëñ Bamba billaay